asalaamaaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport tey di samedi 26 dañu ñëw ak yéen ci revue bi doree ko ci kayit xibaar bi di stade quotidien dafa dellu siwaat ci match bi nga xam ne Sénégal am na ko ni ki suñu gayndee dañoo dóor Qatar ñetti bal ci benn mu ne gaynde yeewu nañu de yeewu nañu ndax jox nañu Afrique li nga xam ne mooy njëlbéenu victoire am ci coupe du monde bi Afrique bi ñu tàmbalee coupe du monde bi ba koo xam ne am na ndam Sénégal nag moo nee na gaynde yeewu nañu kon gars am nañ problème léegi nag mu ngi xam ne ne am di match bu am solo voilà dañu ko joué loo ci côté droit droite bi waaye nag moom dal dinay def lu am solo daal di joxe li nga xamante ne mooy benn passe décisif te nee na de moo def match bu gën a baax ki nga xam ne mooy Krépin Diatta ak Ismaïla Sarr du samay wax kii xibaar bi di stade moo ko dal di indi Aliou ci nak di sélectionneur national bi mom mo ngi xam ne ne fi li nga xamné mom lañu wara niki démb manam jom ful ak fayda ji nga xamné wara nañu ko niki démb ba daldi am ndam ci kaw ñi di wa euh, Qatar lu ni mel lañu indi wa rek contre Équateur su ko defee ñu daldi mëna am victoire seen kaw ngir ñu wara mëna qualifier ci li nga xamné moy 8e de finale yi waye tam mo ngi xamné né Edouard Mendy démb def na match bu reuy Edouard Mendy biñu xamone dal daal gisat nañu ko voilà gëna bi nga xamanté ne kat ñu bari ñu dung ko doon critiquer ndax kan jumte yo xamné doon na ko faral di def waye démb mom xam nañu Edouard Mendy bi nga xamné mom lañu la mom lañu gisat motax Edouard Mendy Dembo, bokko na ci joueur yi gëna a ba tay ci jongante googule kayiti xibaar bi ñëwna na ba tay ci yenen match yi nga xamanteni ni jamono yi war na xew ci coupe du monde bi na match bi nga xamni ñi di France tay ji war nañu ko am nee France Argentine Arabie Saudi, ñom ñëpp ñu ngi leen di xaar tay ji ci samedi ji wala nee samedi lay doon bo bu metti lay doon Allemagne euh, a ak ñi nga xamanteni ni ñoo di wa Espagne ci dimanche ji fofu nak mom itam di jouer li nga xamanteni moy final ndax nee euh, Allemagne fi ñu ne ci danger la nek danger bu reuy sax ndax jogante gogu ñak nako rek moy danaka buntam ubbeeku na ngir mu ñibi kërëm wala lool ci dimanche ji day xew muy match boobu war dox diggante Allemagne ak ñii di waa Espagne wax na tam ci li nga xamante mooy Ligue 1 sénégalaise bi nga xamante Stade de Mbour war seen diggante ak Jàmbaar boobu mën nañu wax ne derby la ndax ñaari équipe lañu yoo xamante ay dëkkandoo lañu ñu ngi xaar match bu rëy foofu la ca Petite Côte bi nekk ca dégg nga muy diggante ñii di Jàmbaar ak Stade de bu dee record moom tam dellusiwaat na ci match boobu nga Sénégal fi mu ni final la am bu koy xaar diggante mag ñii di waa Équateur mu nekk match boo xamante ni kat Sénégal ndam rek la ci war am ngir wara a mën a qualifié nee na Boulaye Dia Famara Diédhiou ak Bamba Dieng ñetti numéro 9 yépp dañoo daal di marqué but voilà ñoom ñett ñëpp bu ñu xool ay attaquant de pointe lañu ñoom ñett ñoo dugal ñetti bit nga xam ne Sénégal am na ko ni ki démb léegi nag ñu war jublu ci wàccaay match bi ñu war am suñu diggante ak Équateur ki nga xam ne mooy capitaine bi di Kalidou Koulibaly wax na nee na match lay doon boo xam ne bu métti lay doon match bu difficile moo ñuy xaar suñu diggante ak Équateur ki nga xamante ni tam mooy kii di euh, Aliou Cissé di wax ne daal ndam li nga xam ne am nañu ko di ki démb dafay jox chance li nga xamante ne mooy seen liggéey di wane ne daal lu ñu ngi doon liggéey te liggéey bi ñu doon liggéey am na njëriñ loolu nag li koy wane mooy ndam li nga xam ne am nañu ko ni ki démb buñ jógee foofu nag seen kayit xibaar bi nga xam ne mooy l'équipe moom nam dafa ñëw ci match bi nga xamante ñii di France war nañu koo am seen diggante ak Danemark bu 16h jotee nee na match lay doon boo xamante ni day bu métti lay doon ci France am match bi a a jàll gannaaw bi moom jaaxal na leen lool ndax Danemark kat bu ñuy xool taxawaay bi nga xam ne am nañu ko fi ne nii jaaxal na lool ñii di France yi ak lu mën a xew daal nekk na jogante goo xam ne faw ñu jël seen revanche bu ñu bëggee dégg jàll ci li nga xamante mooy huitième de finale yi bu ñu jógee foofu Angleterre la dem kayit xibaar bi nga xam ne mooy Daily Express moom nag dafa ñëw ci match bi nga xam ne Angleterre am nañu ko niki démb seen diggante ñi di waa United States muy Amérique muy match boo xamante kat bu ñuy xool dañoo match nul zéro partout waaye jogante googu la day bi mu jeexee supporters yi Angleterre waaye bi ñu ñëwee daal dañoo am déception bu rëy ndax match bi ñu joué démb dara baaxu ci dañoo match nul waaye itam dégg nga maam joué wuñu joué boo xam ne bu baax la bi ñuy xool amee ndam lu yaatu bi nga xam ne amoon nañ ko ci match bu njëkk bi seen diggante Iran ci lundi bi passé nee loolu na waral ba ñu ngi wéy di des ci bopp classement bi waaye li mën a xew mooy supporters ñoom am nañu métti te it war nañu ko yooxu nañu nañu ko buu nañu gaay yooxu nañu leen ba ñu xam ne dëgg-dëgg ñoom kontaanuñ ci ñoom bi jongante gi jeexee nag ki nga xam ne mooy Harry Kane moom dafa ñëw ci Messi Messi bi nga xamante dafa war a jouer finalam voilà match bi nga xam ne war na dox digënté mak Mexico muy premier final bi gënaa bi nga xamé né kat buñu xol ñom dañoo amone défaite ci match bu ñëk bi seen digënté ak Arabie Saoudite néna na né ni li leen di xaar moy Mexico bi nga xamné jamono bi ñoo wara jënok ñom té Mexico nak équipe la bo xamné bu nakari football la voilà kon yé di Argentine dañoo am pour door buñu bëggé wéy di def ci li nga xamné moy euh, Coupe du monde bi légui nak ki nga xamantene moy Lionel Messi bi nga xamné ñu bari dañoo amone la ci mom ndax gañu gañu bi nga xamné amone nako ké di xibaar bu nga xamné né mom tagatu na niki dembu voilà entraîné na bu baax ak groupe bi té japp nañu né dina jouer ci match bobu nga xamné ñi di argentine war nañu ko am seen ak mexico nga xamné ñom buñu ko ñaké rek mën nañu wax dañuy ñibi té ñu bari japp nañu né bi kat moy dernière chance ki di lionel messi ngir mu wara mëna gagné ko du monde kon match bobu du yomb ben yoon ci ñi di wa mexico buñu joggé fofu mundo deportivo mom tam ñëw na ci li nga xamanté moy jogante mel ni momit ci messi la ñëw ak argentine ndax kat néna na xol messi mu ngi waajal jogante and ci ak dal nak waaye nak lénen mëna xew dé messi mëna tok tok butel, bu téel wala ndax tok go xamanté ni fimni ni kat yu bari seentuwuñu kon moo tax final la am final mo taxaw ci kanam forme kii di Lionel Messi contre ñi di waa Mexico Argentine bi nga xamante ni ne nii match bi muy joué match bu historique la pour kii ñi di waa Argentine voilà historique la pour euh, Argentine ndax bu fekkente ne toog nañu xam naa ne ñoom euh, bi yoon ñu am toogaay bu teelee bu ni mel maanaam li nga xam ne mooy ñaari match ñu dal di lay dóor ñaari match yëpp nga ñibbi nee na bii daal bu fekkente ne Argentine loolu loo la bu taxaw ci kanamu kii Messi ak waa Argentine ba tey Mundo Deportivo ñëw na ci li nga xamante mooy kii di ci Neymar bi nga xam ne dafa amoon blessure ndax kat dafa gaañu woon ci match bu njëkk bi nga xam ne Brésil doon nañu ko football ndax dafa amoon gaañu gaañu ci doojoor bi léegi na Neymar de fi mu ne nii moom génn nga xamante ne mooy phase de poule yi maanaam li des ci phase de poule yi moom du ci bokk mooy ñaari match yi di ñëw nga xam ne Brésil war na ko football Neymar du ci bokk ndax nee na tànku ndeyjoor bi daal ci doojoor bi foofu la am gaañu gaañu te loolu nag moo ko rule out ci jongante yi nekk ci seen kanam bu dee kayiti xibaar bii di AS moom dafa ñëw ci ki nga xam ne mooy Lionel Messi ak Argentine nee na day ñoom dañu war a jouer tey ji match boo xamante ni war na dox diggante Messi ak Tata Martino Tata Martino nag nekk koo xamante nee na tàggat na Messi ñaari yoon tàggat na ko maanaam nekkoon na entraîneur bu Argentine waaye itam nekkoon na entraîneur bu Barcelone kon moom nekk na koo xam ne tàggat na Messi ci ñaari ñaari anam voilà nee na kooku la Messi war a janool tey ancien entraîneur la war a janool mooy jongante goo xam ne fu mu jaar dafa war a jaar ci kaw Tata Martino ngir war a a am dundee yaakaar ngir qualifié sinon day toog loolu moo tax nee na match match lay doon boo xam ne bu métti la ci ki nga xam ne mooy Lionel Messi nee France nag dina janoo ak ñi di waa Danemark nee foofu revanche la xaar ndax Danemark dañoo dóor France ñaari yoon ci li nga xamante mooy Ligue moo tax ñoom it euh, revanche na ci li googu Dani Olmo moom dafa daal di ñëw ci kayiti xibaar bi Dani Olmo moom ci équipe nationale bu Espagne bi la nekk mu ngi xam euh, leneen moom de ki nga xamante moo ko gën a jaaxal ci équipe nationale bu Allemagne bi mooy kii di Jamal Musiala xam nga ñoom war a janoo euh, a jouer ci mooy dimanche bi waaye moom Olmo nee nañu bàyyi xel bu baax ki nga xamante mooy Musiala ndax mooy bu ñuy wax euh, ki gën a ci équipe bu Allemagne bi mooy Musiala la voilà nga xam ne mooy Luka am na koo la ak xarañ téefam moom dafa jàpp na kawe goo xam ne foo ko jéggi foo ko natt weesu na ko moom kii di Dani Olmo moo daal di gaaral kàddu yu ni mel ci kii di xibaar bii di AS ba tey Marca moom ñëw na ci ki nga xam ne mooy João Félix bi nga xam ne jamono bii dafa nekk ci yoonu génn équipe boobu finale janvier bi maanaam coupe bi su passé Félix moom dina jógee foofu la ci Atlético ndax ki nga xamante ne mooy agent bi di Jorge Mendes jamono bi dal dinay am li nga xamante ni mooy feu wax nañ ko ne carrément daal mën na dem utali club ki nga xam ne mooy kii di João Félix kii xibaar bi nag mu ngi xam ne ne fi ñu gën a ne dina fa dem mooy Chelsea Bayern Munich Paris Saint-Germain wala Manchester United ñeenti club yi daal ñoom ñëpp xamante mooy João Félix foofu la ca Atlético de Madrid gars yi loolu jàpp kon tey ji ci kayiti xibaar yi continuer leen di suivre seen sport the best sport news channel